vous êtes euh, très joignable. Je le témoigne ici. On peut vous joindre à n'importe quelle heure jusqu'à la Mecque. Vous êtes parti faire le pèlerinage et en voulant alerté, on ne le savait pas, on a pu vous joindre. Et, monsieur le ministre, ça c'est extrêmement important. Un ministre de l'Intérieur, dit-on, est, le est la personne la plus informée mais à condition qu'il soit réceptif, à condition qu'il soit joignable, à condition qu'il veuille recevoir les alertes. Nous sommes en contact avec les personnes. Nous venons de la base. Nous sommes des femmes rurales. Nous connaissons le pays. Nous avons des informations. Nous n'avons pas voulu changer de numéro de téléphone depuis 1998. Donc, nous sommes obligés de communiquer avec les personnes. Mais vous l'avez accepté. Et c'est important parce que nous sommes dans un contexte où, l'on l'a déjà dit, chaque personne doit être en état de veille et d'alerte pour donner la bonne information. Nous avons dit il y a deux ans, lors de la fête de l'indépendance, et au niveau de l'administration territoriale, il y a des préfets, je ne veux pas remercier les préfets parce qu'on va dire qu'on va l'affecter. C'est euh, une dame de l'opposition qui l'a félicité. Mais il y en a qui connaissent leur travail, qui demandent aux groupements et aux associations tout ce qui n'est pas anormal, signalez-le. Il y a, des, gens de l'administration qui le disent. Euh, je voudrais féliciter les forces de défense, mais adresser aussi de très vives félicitations aux soldats du feu monsieur le ministre dans euh, l'histoire politique du Sénégal pas am personnalité bu ñuy wax mu réguler wala mu nekk euh, médiatrice wala mu taxaw ci diggante opposition ak pouvoir wala mu réguler dara bu am consensus bu mel ni bu Famara Ibrahima Sagna man mësuma ko gis parce que une personnalité qui a ne ñaari proposition dañoo daje ci M'om. bi opposition bi proposé menn man de maa jóg taxaw ne leen d'accord ma li tax ma d'accord bañ a d'accord du ci faama rek du ci jëmmam li tax ma bañ a d'accord mooy dama ne ñi ma àndal décc mooy sama témoin ñun du ñu choisiral état personnalité moom moo ñu gën a outillé gën ñoo xam ñun nañ ko wax lan lañ bëgg nañ ko ni ku neutre nañ ko ni ku amul couleur nañ ko ni ku amul appartenance nañ ko ni ku jengul nañ ko ni ku nàngam mais nañ ko bàyyi moom mu tànn man maa ca wax loolu te la ma ca wax ak kës néew fekku ca keneen le 27 mai le front bi def communiqué choisir Famara Ibrahima monsieur le ministre devant la représentation nationale nga wax ñu tay mënu en commission deyo Nous ak yow le message légui Nous dama la kay wax plénière nga wax ma ci kanamu mi ci kanamu représentation nationale parce que nous équipé ngeen dans de très bonnes conditions mu ngi traîner mais tant que installé wuñ xam Famara xam école bi mu xam ni effectivement def dans l'informel def dans l'informel à partir de ce moment bi nga ni ñeneen a di wax xamuñu dañuy politique xamuñu ndax man tutelle dama cadre institutionnel

ku ci nekk nag muy décce muy keneen kenn ku ci nekk am nga droit wax noo te nag un oui n'a de sens que quand celui qui le dit a la possibilité de dire non te ñun ñëpp nag am nañ possibilité wax non mais dañ ni oui